la aouzu billah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah alhamdu man ma door gërëm ki may ma xel ba may xalam rabbul wara moom laa gërëm ci gépp wet ñaan ko xikam alhamdu man ma door gërëm ki may ma xel ba may xalam rabbul wara moom laa gërëm ci gépp wet ñaan ko xikam te way jullil ngeen ji yónneen salal ilaa kii du kaneen ñaanal ko yiw li fii ba siin luy fépp suuf moo ko ñu ñam te nag ahmadu may xaadim rasul ka dootu fay ni ay mayam buur bee fi xëy di ful di wéy gisuñu yemam ci ay mayam laa xëy di xuus ba gis fa géej guy sànni duus jënnee di tëb waa ji ko mos texe ci fii ak fanu jëm moo tax ma jug ni mos ko ndeem damay murit bu gëm mbiram jërul guddal ma wax ñu xam boobale mbeex lan mooy turam Cheikh Ibra baabul Babul Rijal kii laa di wax ni mooy kamaal yàlla ko def jërul di xul nangoona wartan wi xalam moo tax ma jug tënk ci mbir te wax ko nag waxiin wu ñor def koy bayit ku bindal te wax gisun kemam ca njël la jug te jiitu njël nam doon jëfee moom lay wëyal xol bay zikar jëf jëy jëfale Seex Bàmba mi amuk payam bam ne jaleñ la xàll yoon wii nuy jariñ ndaqee fi noon yi daan fi bëw subaaki ngoon moo leen tëbal ci ay jëfam nu yoo di raam ci ak dundam le xew ba tey nangeen ko xam yaf ba tax mu jël jëxam teg ci loxob kabib sangam barke lu ngir borom xarash moom lay jinéer ba tax ma yësh xamul tagg ak waaju ko xas moo tax mu raw ci ab sangam xamul nawet bay xàmme noor liggéey la xam fi yekkajoor jëf ne fi lal dooti fi réer moo raw ci góor gi suñ pëndam daa jàng am te leer géeju xekkam ca lay dëngéer moo tax xelam raw nay xalam xam na arab ak la mu gaw ràññu uruf suuf ak kaw di wax ci suuf tey wax ca kaw ku dem ba ñëw jox la pëmam xam naa ca fee te xam ci fii la may xalam ca feek ci fii Cheikh Ibra Fall Dumaas bi ku am xekkam nanguy mbiram daa jiitu góor ci gépp nguur te ay cëram day jëf lu wóor yéeneen ja set ba mel na or baa sax jamaa bu raw xalam fu mës a jëm bandi ko seen ku teen fa xool doo gis du benn lépp mu ko gëstu meen wanu ko leel raxul ñaxum liggéey jubal tey jaamu buur ba ab sangam wax ka ni góor doo dootul dab ci benn tuur xaadim rasul moo doon sangam moo ko goreel ba jox ko cër bu yaatu lool bi teeki biir naa ni nga xalem ndeem am na yuuru gi daw ci nun nanguy jëfam kuy yaxi gor tiimug yuqam sidit yu set wóorub jëxam ki tax ba tax taxul ni moom war ngaa gore war ngaa liifam ki tax ba nit fa buy yëfam ñëw ba fi yow fab ni la am xoolul ñàkk ngay gën a am boo de ko xel war ngaa xalam ki ba nit fa buy yëfam ya fab ni la am xoolul ñàkk ak ngay gën am boo dee ku xel war ngaa xalam liggéey lu lew booleeg di raam fab ni la am mel ni sa jaam te nekk gor bàyyi ba ci maam ki tax ba lii jox ko cëram togg lu lew neex bari lool ka def ko xiif te sonn lool fab ni la am doo def mu xool loo jëf mu neex ko war ngaa gërëm tuddee la doom raam di ko jox xoolul ci yow bon wala mbaax loo laaj ma fëx daal di la jox bayal la tool fab ni la am toppaat ci yow guddeeg ba ci taw yow du téye mu jug di waaf di ñëw war ngaa gërëm Cheikh Ibra Fall ma fàkk yoon woowule ngir nu manqué woon yàllaay kisam la jiitaloon ci ay jëfam ba am gërëm gaaye nelaw muy sàkku cër ba yàlla xëy jox ko lu ñor du xëm du xaay raw nay gobar Cheikh Ibra Fall sànkul dundam du jëw du xas sellal jëfam gisuñ fi tab diirub dundam bu mel ne moom te am xelam wax leen ko kaartarooy jëfam nekkoon ku jub yarey goneem jëmbat ca ñoom la diw meloom te weesuwul na gom sax yéem naa jeex gisuñ ca moom luy génn teex mulk ak diiwaan lii lan fa wax maa seede man raw nay kemam am nay kono am fetal yées mën la tul te am na bal yor nay këyit te am ndigal loxoom ba jub sax naa ñi xam xuloo ki xeex doonul mbiram saag ba ngeer mooy nay jëfam si liwi si xay dundeew ñaqam doonoon ku dal doy lob sangam rabul waraa mooy kakafar may koy mayam te def ku xér yéena ko lool ngir kakañor la daan jëfal tomuy xadiim boroom alal akub faqiir nooyem fa moom bitteeki biir xamul urus bay xàmme or lu ma a am joxoon xadiim buntam du ub guddeeg ku nit mu wekk laaj la si mbir tontu dayoom ci lii la sax mësul darax ci ay jëfam lu weesu mbaax yàlla nay fa yem di wéy di sax li fekk mi lax di am boroom amina kon ma fër këlam ni ay jëfam tuut naa ci xam ni mag mu njool yenub këllam lu fel ci suuf di pis bëtam xanaa di ñaan wér gudd fan yi ngërëm mucc ci fen xéewal yi law te sax ci nun li fekk xadim nekkub sangam allahuma salli ala sayidina mawlana muhammadin wa sallam tasliman jëf sëñ Tuubaa seen mbokkum taalibe Abdul Hakim Lo ibnu Sëriñ Malick Lo ñoom de Gusaas moo doon barkeelu